bokk na ci mission yi ma gën a neex ci sama liggéey mooy taxawu ñi nga xam ne dañu soxla taxawu ñi nga xam ne dañu néew doole walla ñu toll ci ay diggante xat-xat looloo waral tey suñu teewaay fii ci biir département de Goudiri fonds de solidarité bi ko déroulé ànd ci ak PAPSA ñëpp bokk ci biir ministère de la famille et de la solidarité waaye ñu lëkkaloo ci ak li nga xam ni moom lañuy ñuy bank banque mondiale pour lu ëpp ñaari milliards ak juróomi téeméeri millions ak lu topp ne dañuy ñëw pour xool zone yi nga xamante ni ay zone yu sensible lañu zone yoo xam ni période bii ñu toll muy diggante nawet bi fi muy tàmbalee ba fi nawet bi di jeexee seen loxo yenn saa yi day jafe pour mu jot seen euh, loxo seen diggu ginnaaw departement de Ranérou bokk ci Linguère bokk ci tey ñu ñëw fekk si leen fii ci département de Goudiri ñu ne kat famille bu nekk ci lu toll ak ñeenti junni ak juróom-ñaari euh, njaboot danañu leen defal transfert muy transfert boo xam ne xaalis lay doon bu ñu leen di transféré ci seen compte ngeen jot ko ci saasi mu tolloog ñaar fukki junni ak juróom-ñaari te juróom-ñaari junni ñu yaakaar ne dina dimbali ñu bari nag waaye dañoo bëgg ngeen def ko ci dund bi du pour tabax du pour def leneen